Barthélémy Diaz, euh, maire de la commune de mermont sacré cœur un an ou gestion ou second mandat bu mu fokkati ci loxo askan wi ne bëgg ma wax ci d'accord bon comme je élection l'élection, je firndeel de ne woon on Dakar

a des journalistes qui ngeen fait une enquête ngeen génn goxoo gox lu fa Macky Sall digoon askanu Sénégal dam leen Ndar dam leen Kaolack dam leen Fatick fii biir na ngeen lan président Macky Sall digoon askanu Ndakaaru ah, bu muy def conseil des ministres décentralisé ci Dakar defu fi dara loolu mooy dëgg bi ah, man du un an parce que pour man un an bi ah, ko te euh, damay japp Macky Sall damay wax ci Macky Sall bu mu toogee ba 3000 milliards at bu nek ñu ngi jox 3000 milliards ñaata at la fi Macky Sall def 7 ans ak muy 8 8 fois 3 24. Macky Sall bu mu toogee ba tey 25 nañ ko 25000 milliards 25000 milliards ñu gestion sobre et vertueuse ay xétu le marto bu nek ñu fay gis. di Alé bu un scandale au cœur de la République ça veut tout dire fils fi dit 500 500 emplois par an Je ci biir mandat Si je suis ci kaw fu je créé un emploi il teg ba chômeur Je PMI la dette intérieure du Sénégal vais donner un exemple commune mon Sacré-Cœur presque at ñu ngi pour faire terrain synthétique dana gagner gagné un marché ñu jox avance démarrage 20%. nous pour am ak amul banque fii Sénégal bu ko bëgg a banque Et su amul un contrat ci bi ñu Sonatel Orange banque bu mu dugg ñu ko ça veut dire que tey ku am un ci dëkk Sonatel ngay entrepreneur nga dem banque ñu la ku am kayit ñu bind ci kaw république du Sénégal foo dugg duñ la jox xaalis ndax lan état du Sénégal bu dul fay ay bor mooy la dette intérieure dem leen ci école privée yi dem leen laaj école borom école privée yi ñaata milliards la leen état du Sénégal amel état bu mënul sax jël ay doomam fayal leen école état bu nga xam ne day dem sax ba am ay problème mu machine pour faj ay malade kooku ngeen di ma laaj gouvernance su Macky Sall bu leen ma waxloo émission bi guddul amul lenn lu ma wax sénégalais yi te mu leen di jaaxal sénégalais yi seen yaakaar a tas moo tax dëkk bi nañu wax lu ñu ñor ñun ñëpp Sénégal pour mu delluwaat doonaat démocratie mu delluwaat doonaat réew bu nga xam ne référence la il faut que ñu jëlee lu fi nekk parce que lu fi nekk dafa amoon lu ñu digoon gars yi di def lenen té loolu ñepp ci tek seen bët lepp ñepp ci tek seen bët amul ben engagement bu président Macky Sall jëloon ak askanu Sénégal mu respecté ko du gouvernement de 25 ministres du 500 000 emplois du gouvernement sobre et vertueuse du la patrie avant le parti du dara de tous lepp ay wax yu daanu tous la ndax lan ndax bëgg bëgg nguur bëgg nguur bu mu la jaral yenn yi wante su ngeen gisee ma wax leen loolu parce que coono bu ñu nar daj ak Macky Sall jeexagul te kooku foog Sénégal yi xam ko coono bu ñu nar daj ak Macky Sall jeexagul parce que mi ngi ci ay tànku troisième mandat loolu tamit moo ko pousse mu def lu mu def ci mbiru statut spécial Dakar bu mu doon jéem agité euh, temps yi parce que je reviens à ce que j'ai dit suma yaay bu baax ji maa nuyu au passage Ndiaye fekkee moko ci bolé fa la mëna a ci wax ji parce que xamna ko du ñiti complot peut-être dañ ko ci duggal mu japp ni que peut-être moom dafa na duggal ci loxom pour mëna peut-être sauvegarder ses intérêts wante la femme que j'ai connue xaw ma ko ci ay complot complot xétu complot yu mel nii Macky Sall kese moko mëna conceptualiser parce que c'est sa culture politique c'est sa culture démocratique Macky Sall mom waxal nako bopam boppam na daf ci tombé te wolof njaay ne na tombé may waral ay voilà alors ya ngi wax nan dafa arracher li nga xam mo di victoire bi ci peuple bi alors que ñom tay jii ñu ngi vanté wu ne plus de 58% huit pour lañ leen usuré euh, paradoxe amul foofu. mais satch bo japp di la wax mu di don satch satch bo japp soo yewon 2h du matin japp satch sa kër di nga duma duma duma duma ba dugg boîte vocale wante duma sa nangu dafa doon sàcc te même su nango da doon sàcc c' parce que duma yi ñoo metti rek wante su demee ba egg tribunal ba jàkkaarloo ak juge bi day wax juge bi dañ ko dëkkaloo fu mu dëkkul xam ngeen tey ba Macky Sall toogee ba tey ci nguuru Macky Sall rek ngeen di gis ay sàcc yu yuxu sàccee sàcc yu yuxu sàccee ci nguuru Macky Sall rek la am xam ngeen Pape Alé Niang ñu koy jaajëfewaat bu baax a baax au passage xam ngeen lu mu bind ci livre boobu ci téereem boobu dafa jéggi dayoo ana rapport du poste coude bi mom duma ci wax ana port mën nañ continuer les sénégalais savent tout lenn le sénégalais na do a dugal sen bir bop yi ak sen bir xol yi Macky def fi na ngir san ay dom ak ëllëgu Sénégal di nga gis ay xeetu njit yu nga xamni ni nii baaxuñu ci kër waxuma ci rew ci kër la wax baaxuñu ci kër baaxuñu sax ci mbalit dañuy yàq jikko yi di yàq xalaat yi di yàq xol yi di yàq yaakaar yi euh, il faut qu'on se comprenne balaa may dee ñu mel ne ay xalifa day éligible du éligible kooku ñun suñu yoon newu ci kooku mbiru yàlla la na fi Macky d'abord jógee parce que lu Macky yàq Sénégal je pense que il faut d'abord mu jógee fi pour que Sénégalais yi mën ko xam te Sénégalais il faut que ñu comprendre que troisième mandat bi ñom kessé ñom kep ñom rek ñom dong ñoo ci mëna a def ci dara sinon da kay dox da kay dox parce qu'une fois de plus nit bu dem ba nangu ni que li daf ko bett daf ci tombé mom néna mom moom tay Khalifa salté tey su nekkoon tay président du Sénégal wala Ousmane Sonko bi tay su nekkoon tay président du Sénégal mais du bett ken parce que dañ leen gis ñukay dox diko wax ki daf ci tombé mom ko waxal boppam nee mom moom xalaatuloon nek président du Sénégal mais comme yalla moy fal ah yalla jàppoon na ni que moom comme doomu baadoola la woon ah yàlla ne comme askanu Sénégal danaka sonn nañu baadolo ñofu fa ëpp naa leen baaxee benn baadolo mu am yërmande ci ñom ndaysan peut-être sax yalla yàlla yàlla dafa juum indi badolo buy iñaan ay badolo ñu am yaakaar dundu dundu bu sel lolou ñun loolu lañ dund tey Sénégal parce que tay du étudiant du napakat, du béykat du sambakat, du enseignant du docteur amul ken ku kontaan ci nguuru Macky à l'exception d'une partie de magistrats à part ñooñu amul ken ku gis boppam tey ci nguuru Macky voilà euh, lu jëm ci liberté individuelle yi. autorisation droit de marché yooyu noonu gis nañu boobu ba léegi euh, Guy Marius Sagna bokk na sax ci yenn combat yi nga xamante ni ñoo lànk ñu koy mëne manaam baisse du coût de l' électricité mais également libération Guy Marius Sagna gis nañu daanaka ñum fa àndaloon ñëpp bàyyi nañ leen ñoom docteur Babacar Diop ñeneen ñeneen mais li ci xaw a lëndëm mooy ba léegi moom ci la des te ñoom ñoo bokk euh, benn engagement ak benn peut-être même bu dee délit la sax boo xam ne ñoom ñoo ko àndoon def euh, teyul sa xel dafa amul weyu weeruwaay moo tax ñu koy jëm a jaay doole wante dina dakk tey ci suba ci bureau bi fii dalal naa fi ay ndaw yu am baat ci yoonu jàngu bi waaw te waxuma ay labbe laa fi dalal la dama ne ay ndaw laa fi dalal ma xam leen nag ñu bàyyeeku Parcelles Assainies ñee bàyyeeku Grand Yoff ñee bàyyeeku cathédrale ñee bàyyeeku fi ay martyrs waxuma nag sax suma wa gox wa paroisse Saint-Pierre des baobab Guy Marius Sagna dafa am fu mu bokk muy bokk moy fu ñu l'église catholique du Sénégal man bamay lancer appel église catholique du Sénégal dama ci waxtaanoon ak ay ndaw nee naa église bi yàbbi ci mbiru Guy Marius Sagna nañ ci wax parce que sen cër la té ñun wax bi duñ ko bàyyi té xam nañ bu baax lu ñuy def té nak ñeme ko motax mu neex té dinañ ci am dam ñu ngi gërëm di jaajëfee bu baax baax ay ñoo lank ñoo bañ wante lii seen xex ça sera le combat des jeunes catholiques de ce pays Macky Sall dina bàyyi doomu jàmbur tay suñu waxtaan fi ci bureau bi tënk nañu semaine bi inshallah suñ ci duggee lettre bu nar a dem Vatican moy toute la jeunesse catholique du Sénégal dinañ ko signé lettre bobu ñu ngi kay paré di ko solal yére parce que nak kuy bind ba di jëbbal lettre bobu ku ilif église du monde moi pape kooku sooy bindal la da nga xam nooy bind dama ne man Barthélémy Diaz yagna te de kasso ken musul gis Guy Marius Sagna di ma xeexal pour ma gëna ci kasso bi man Barthélémy Diaz yagna te de kasso ken musuma dégg man Barthélémy Diaz may wax j'interpelle l'église parce que man ba may de kasso dama def jëf ci mbiru politique dans le cadre d'un combat politique et je l'assume sur le plan politique. Guy Marissagna, problème sur le plan politique. Danko Diap sur le plan de la citoyenneté et du patriotisme. Mais quand nous Big le cardinal, bi, cardinal Sar, dit est Kilifa, Diop ne mangi ñaax catholique yi dougal sen loxo politique parce que politique le ëllëgu Sénégal na ci gourgoulou. ay ndaw catholique dugg politique di joxe sen xalaat di ci dugal sen te yalla tax ak nu len yare di wax ci waxu courant te amul ben sénégalais budul na bu courant bi ay de la ñu Sagna ak nit ñu ko mom santul santul Si malik santul Lay Lay dama ne lank c'est pas parce que nous sommes une minorité gars nous ñu bëgg Sénégal Nous ko ah. il faut savoir raison garder Guy dañ ko une fois de plus c'est une minorité on ne l'acceptera pas et les jeunes catholiques que j'ai reçus ce matin l'ont bien compris et faites-nous confiance su ma leen Bi, dina dal rek dina dal. dina dal parce que l'église catholique du Sénégal a le moyen libérer Guy Marissania, Sagna ñun xam lu maintenant avec Macky Sall su soxlaawul xobi catholique yi nañ ñu ko wax ñu xam lu ñu koy defante ak lu ñu koy defante général des Mourides su waxone julliti mouride ñep deg ba Macky Sall ne ko non mu leer ci bop mouride su ko defone tamit tidiane mu leer sen bop ñun lu ñu bëgg ñu né église catholique def communiqué de presse wala ñu def conférence de presse ils sont assez outillés parce que ñu unif église catholique du Sénégal ay homme d'état lañu parce que l'église c'est un état le Vatican est un état libéré Guy Marius Sagna man dama lañ jox ben exemple bu ndaw man togon na fi jamono nguru Ablaye Wade

te man mënu ma nangu église di jël xaalis te kenn xamul xaalis ba fu mu jógee mën na ci drogue mën na ci ay yeneen activité illégale ñu né non Barthélemy na mané len dama né du fi dal la wax man duma talibé taalibe wu kenn je suis une fois de plus un chrétien mais pas un talibé mais laaj leen te lii duñ ko ti mukk parce que dama len né mënu len tok ngén néñu cimetière bi musuñu ko won bénir kon yéen li bénédiction la won avec les euh, yéen suñu mbokk yu ñu fa à l'époque yëpp dañu leen suuloon ci benn bayal église catholique am na lu mu moomul te am na lu ngeen man Barthélémy Diaz man minorité là. mais ce que nu may au Sénégal je suis fier d'être catholique et d'être minoritaire parce que ce pays là musuñu ma wan ne ni que man minorité là. comme Macky Sall xamul ñun ñooy kan wax est-ce que moom Guy Marius Sagna téye boo ko est-ce que dafa foog ne ni Guy Marius Sagna daf ko téye parce que amul wéeruwaay comme dafa jàpp ne Guy Marius Sagna amul wéeruwaay na ubbi ay bëtam rek Barthélémy médias mooy wax nopp ubbi ay noppam mu xool déglu. Euh, beneen bi nag église catholique je reviens à ce que j'ai dit ñun jël nañ responsabilité parce que semaine bi tamit man suba suba la ngone tukki dal wat Canada dama am jàngi maa ngi toog fii dama ne affaire gui bi d'où la personne de Guy. On ne peut pas accepter d'être une minorité dans ce pays, nous nous écrasés. Et je reviens à ce que j'ai dit. C'est le cardinal, mon politique. Mais Guy, ah, mais fan nañu bind des constitution du Sénégal que Guy le droit ne courant de facher. buntu palais état des droits réels buntu palais état des droits réels Vous laajte kan moom buntu palais tout l'État du Sénégal moo ci du Sénégal c'est toi c'est moi c'est nous tous buntu Maison Blanche ku Fanan, c'est l'homme le plus puissant au monde Gagne, il est teg ay tante. tante le 1er janvier 31 décembre Tante là, wax Donald Trump tek ay micro di ko wax Bopam. Big gis buntu Élysée Ben taxaw Macron ne ko ma wax la sa alors Macky Sall tu te prends pour qui toi yaay suñu président kontaan nañu suñu neexee ñu ne la kontaan nañu ñun fii kenn wootewu ay ay noote la fi yaay suñu président nak, dañ la am duñu ak yow d'accord ak yow wante nangul nañ la yaay suñu président même même sax ci kaw sax da nga sif élection yi nangul nañ la yaay suñu président wante notel bu ngay woté fi ak xoqatal bu ngay woté fi day dak. maintenant l'église catholique du Sénégal elle doit se prononcer et elle va se prononcer Inch'Allah mais nous, avons dit que l'église catholique du Sénégal a na ay canaux yu muy communiquer mais si ñu defee fait l'IEP, je m'en fous boobaa nag catholique xam lan la ñuy ak carte électeur parce que personne kanam borom faire koy fajal mais il se prend pour qui ce monsieur là bu ñëwee ci wàllu gestion un an ba léegi peut-être am na yoo xam ne salutaire na ci ñu jël barki dem en conseil des ministres arrêt tout ce qui est acquisition de véhicules ci yenn structure étatique yeeg yooyu noonu peut-être euh, en terme d'économie am na lu mu war a mën a jàppale nguur gi ba mën investir ci yenn ci domaines yoo xam ne sénégalais soxla nañ ko. mais man du ma gune bu ñuy wër ndomb nit ki balaa nga ne naam ne fa yow lan nga woote gouvernance sobre et vertueuse nous ñoo dañ la won ay sacc. Na la saccé ñu ngi ni dik rek le Pape won kenn ci sa nga la Yoron fi kudd waaw lo ci wax ci wax taxaw Ousmane 94 milliards yi ma leen fi procès du fi sàcc buy yuuxu sàccee Sénégal la am nañu bàyyi di nalawal askanu Senegal di leen di wax ay auto ay oto Macky nee na truc waaw Macky moom oto lay wax moom laaj leen ko moom ñaari oto la bu muy dem ci deju Tanor ngéeñeen Auto bu takkon fofu. ñaata million nga doon jar le lendemain bu muy dem ker Ousmane Tanor Dieng même auto bu lay yobu. Yoy ay Mercedes Maybach la ñu ñu dëkk États-Unis ñu dëkk Europe xam nañ fu may waxee xam nañ lan mooy Maybach nous ay président duñ ko sax dawal lolu ay star ñokay dawal ay basketball football ñu dañu am alal bu nga suñu duñu nous, suñu duñu reer ngay taxaw mais ce bop ngay nax lu ci lu ci li dimbali ñu te tax organiser l'élection joxel nga ñu compétition nga xol ci Sénégalais mhm. élection yooyu noonu aussi yaa ngi wax ñu organiser ko mais ba léegi euh, ki nga xam ne moom na àndal muy sa leader di xalifa euh, bokkam leer aussi parce que est-ce que éligible na tey jii nii loolu lañ teg ci kaw table bi nii bu dee foofu noonu tey jii nii ànd na xalaatuñu mu bokk ci li nga xam ne moom moo di jogante yi. xalifa mooy ne wax dafa bëggoon bokk damay laajte rek man de Barthélemy de lan laa leen mën a wax mooy lu may dox ni man mooy ne fi Macky jógee su fi Macky jógee rek ñëpp am jàmm.

dem ba ci biir nga jël fichier état civil bi rax ci ay jiko say say waaw ah, kooku après nga taxaw ne da ngaa gagné élection yow koy nax yow sa ba pare ngay naxa ndakaaru bii soo fi gañoon élection doo xañ sa njaboot ñu jëlee Dakar ba nga toogee ba tey lu Sénégal rëy rëy rëy lépp Dakar la tere nelaw parce que nekkoon nga fi ministre de l'intérieur te xam nga loolu lan lay firndeel so xamulé Abdou Diouf ngi dund ba tey Wade ngi damal nga laaj len ku ñak capital lan mo ci teggu ñu tontu la moom xam na ko il le sait donc je reviens à ce que j'ai dit bay len waxu éligibilité ou Khalifa Sall amul solo wax len ci waxu Macky Sall est-ce que mom il doit être éligible lolou may wax ci yo est-ce que foog nga ni Macky dafa fa dafa nar am troisième mandat moi je pense que c'est non mais si tu penses que Macky Sall doit faire un troisième mandat, on peut y aller. Mais je pense que si on a fait un micro-trottoir Tibiti, si on a 10 Sénégalais est-ce que Macky Sall doit faire un troisième mandat Non. Donc, nous de Khalifa Sall. Khalifa Sall est éligible ou pas Ce n'est pas la question. Est-ce que Macky Sall est éligible ou pas Je pense que Macky Sall est transcendant. Il a dit que dernier mandat. Il a dit Il a dit que.

suma ma suma damay ne damay parce que loi moo may sañ-sañ waxuma décret waxuma arrêté waa ngi may dégg ñoom xam nañ lan mooy décret xam nañ lan mooy arrêté xam nañ lan loi loi bi dafa loi bi di publicité lii di voie publique mairie moo koy lijjanti bépp koppar bu ci la mairie encaissé <coughs> ñaar wala ñetti at ci mi ngi nii maa ngi leen di wax bind leen sax lettre ne leen am ay ndaw yi dugg ci gox gi di yor ay badge Ageroute di dem yi di jël ci loolu ci yoon parce que agence amul leen droit recouvrer ay recettes ci voie publique ñu waatal ma nañu ñun musuñu yónni kenn bés sax nañ police ba yóbbu ko police jëppal dañ ko bëggoon suturaal te ci Ageroute bii la bokkoon mu jëloon xaalis fii ci ay parking ñu buggoon ko suturaal bàyyi ko mu dem mu sedd tey Ageroute jóg ñu ne gaañ daal yéen daal da ngeen di jóg mais gaañ yi suñu noree jóg parce que dafa am bus rapide BRT wala mu am train express régional TER mais kooku mais loolu xel mën na ko nangu nopp mën na ko dégg. Parce que tout de même, Macky Sall, en tant que président de la République, c'est lui qui définit la politique de la nation. Nakoko. Donc, man, si je suis état, je suis parce que le président Macky Sall, dit gis un bus rapide, ou le train express régional, je suis Mais à nous avons gagné, nous avons droit de Si vous avez talk man, je Vous avez un fal. vous buzz. vous man dañ ma fal yéen dañ leen nommé yem leen seen place bu ci tegu yéen waa Ageroute yéen euh, jaay euh, borom charrette yi borom ñu yor charrette ak fas yi su ñuy jóg xaaja guddi dem di sandi ay grava ci mbedd yi nii di sandi ay grava kan moo koy fomp yéen waa Ageroute wala man mairie yenn waa Ageroute mécanicien su ñu nekkee ci mbedd yi di squatter ay ay ay ay ay bayal bañ fa jógee yéen ñaa leen di ñëw jëlee fee mécanicien yi xeex ak ñoom wala mën naa koy def. kan moma ma kan moma gisul fi terrain terrain ci deux voies fu mécanicien yi ma dafante ko ak ñom bu mu saf-saf ba jëlé leen fi tek fi Auchan ak KFC ana won waa ana woon waa Ageroute alors ñun ñu xex dem suñu askan gaay yi fal ñu ay gaay tok fele sen bureau tal sen ay climatiseur di ngande ngande du ne non fi ku fi bëgg tok ma lay jox autorisation fi képp képp ku fi nar fay man ngay fay du fi dal du fi dal wax lan man na nangul ñu décret président na attribution Ageroute yen mairie bala ngeen di jox ay nit ñu am sañ parking wala balangendi ngeen di jox ay nit ñu tek ay panneau publicitaire na ngeen ko na ko nangul mais ñun ñoy décider du décider tous la wax ñu ne té lu ngeen ci parce que juge dans ce pays qui peut dire qu'un décret est au-dessus d'une loi qui s'appelle le Code général des collectivités locales. Mais c'est quoi cette République Il faut savoir raison garder. gaañu nekk ci mbedd di jaay ay oto mais ay sénégalais la ñu dañuy daan seen doole ñu ngi may dégg kenn am gis nga fii soo leen demoon léegi ci VDN bi su ngeen jëlee juróom-ñetti nit ngeen leen génne leen seen reçu quittance lu ngeen fay mairie peut-être kenn wala ñaar ci am quittance ñeneen ñi fayuñu du ma leen pire. ay sénégalais lañu dañuy dan sen dolé yoruñu jaay auto ak njaay mburu bokul da ngay jaay mburu tous les jours jaay auto da ngay jaay tay bala ngay jaay fi ak peut être semaine lu ma bëgg wax par lolu man jai katu yi ñom xam nañ ko dama leen bëgg jëlé fofu man sumlen leen fa top, xamna lu ci top borom sareeti guddi lañuy xaar ñoo def fofu tuur fa sen mbarit man may nek semaine bu nek di di dem wuti ay pelle mécanique ay camion nettoyer donc ñun soo leen gisee des fois dañuy jël ay parking bàyyi leen foofu sax parce que parking lu mu bon bon bon parking bu nekk am na gardien comprends nga quoi parking bu nekk am na gardien te ñoom borom parking yi xam nañ que mënuñu jaay seen oto yi ci mbalit il faut que mu set mais soo leen fa jëlee tey bus bi ñëwul train bi ñëwul dara ñëwagul mais gars yi dañ fay tuur mbalit agéroute nit ki balaa nga ne naam ne fa da ngay xam lu ngay wax ay les emprises quelles sont les emprises Yan wa Giroud fan nga ñu nek mécanicien suñ ñëw di tok ci euh, ci emprise yi fan nga fan nga ñu nek yéen waa Giroud fan nga ñu nek goudi borom charité suñ ñëw di tuur ay mbalit fan nga ñu nek fan il faut savoir raison garder tout de même nek ci dëkk bi nga xamné ni lo def yow nga nek mairie lo def ñu bëgg la wutal le doublon état président Macky Sall ak ñu mu andal dañ leen fal pour ñu jité réew mi kenn fal leen pour ñu toppatoo ay mairie xëccoo fi mbalit xëccoo nañ fi place indépendance aménagement xëccoo nañ fi place de l'obélisque xëccoo waaye dafa doy waaye may leen ñu jàmmoo te ngeen dem toppatoo ji euh, coono coono askanu Sénégal di jonkonteel dem leen ngeen lijjanti mbay bi dem leen ngeen lijjanti napp bi jàng bi santé bi foofu leen Sénégalais yi di xaar mais pas ci ay une ñàkk fayda ay publicité ay parking ay xawma ana baat injil non c'est c'est dafa ñàkk fayda c'est du n'importe quoi faut savoir raison garder